nga yorob média wala noo mën a jàpp ci bisu màggal gi rek ñoo ngi ñaan yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ngeen di ko def yàlla na leen fayal boppam ngeen gën a góorgóorlu bu baax ci lii ngeen yore dafa woyof nii ci gis nii waaye lu diis la ndax loo xam ne ci leen nit ñuy waxee lañ soxla àddina bépp di ko dégg te luñ ci wax am na ñoo xam ni nu mën a demee dañuy jàpp ne noonu la demee responsabilité yëpp képp ku muy génn ci saw làmmiñ la ngay wax war nay wér la ñuy bind war nay wér ba ñi nga xam ne ñoo koy dégg bu ñu ko déggee danañ xam ne dégg nañ loo xam ne lu wér la daanaka journaliste yi ak sëriñ si ak politiciens yi ñett ñi ñoo yor réew mi nañ war a mel ñoom ñëpp bu ñu melee rek réew mi gën ci réew mi la ñu yàlla jox muy kilifa kilifay diine yi kilifay diine yi du jullit yi képp chrétien yaa ngi ci biir ndax ay kilifa kilifay diine lañ xëy na diine yi ñoo bokkul tur ndax ñun lislaam na jot waaye ñun ñëpp ay nit yi diine lañ kilifi diine yi buñ sàmmoog dañu war a sàmmoonteel homme homme politique yi mel nañu war a mel journaliste yi mel nañu war a mel kenn duñu gënum réew te loolu responsabilité doomu aadama yëpp la ñetti ñi wax kenn ku ne responsabilité yàlla suñu borom moo la ko teg yàlla nag kum teg dara bu ëllëgee dana la ko laajaat journaliste bu ne dana taxaw ëllëg layoog suñu borom homme politique bu neen ëllëg da nga taxaw layoog suñu borom lii nga xam ne tam suñ tubaa moo moo ñu ko dénk sàmm looñu nit ñi yow ma la xam kenn ku ne suñ tubaa dana lañ ñama ñama la booleen noo leen yore woon ci àdduna boobaa nag yaay xam looy lay sëñ bi sëñ bi nag moom ci dëgg dong la ne lépp loo xam ne nañ la du dëgg rek sëñ du mbirum suñ tubaa waaye suñ tubaa moom ku ci nekk foo mën a dem ci àdduna bi àdduna bi nit ñi dañu xam ne lii nga nekk mooy dëgg ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla na ngeen màggal si déwén te bu ngeen di màggal si yàlla na ngeen yokk barke Sëriñ Tuubaa Amen. باب الرقي يغني دار